mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Mouhamadou Mbodj moom docteur Mouhamadou Mbodj nekk médecin radiologue waaye tamit nekk chef du service d'imagerie médicale foofu ci hôpital bu Thiès docteur Mbodj ñu ngi lay wax dalal ak jàmm waaye laata loolu dañ lay sant di la gërëm ngir sa disponibilité vraiment ak sa woyofte ginnaaw bi nga nangoo wuyu fi si suñu invitation bile waaw euh, soxna si jërëjëf maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm yéen mm-hmm. ak seen auditeurs yëpp di yaakaar ne émission bi dina am njëriñ si ñoom mm-hmm. di sant ñëpp di leen gërëm ñëpp jërëjëf également docteur Mbodj dañuy faratal di dégg diw day def rajo diw dafa am rendez ngir mën a def rajo tey rek dañ la bëggoon laaj lu ni mel euh, radiologie concrètement lan la docteur waaw euh, jërëjëf soxna si euh, radiologie technique d'imagerie médicale la rek boo xam ne li ko tax a jóg mooy diagnostiquer euh, yenn feebar nekk si doomu aadama. Mhm. ginnaaw diagnostic boobu de plus en plus sax mun nañu wax am na beneen li ko tax a jóg muy mun na am sax rajo radiologie yoo xam ne day day faj. Mhm. waaye nag du la seule technique bi nga xam ne moo moo am na échographie nga xamante ni am na scanner am na IRM am na yeneen yeneen yeneen mhm. kon fi tënk daal du euh, ma ko mën a misaal du euh, ma ko mën a waxee mooy radiologie technique d'imagerie médicale la boo xam ne day utiliser li ñu tuddee ay rayon X mhm. rayon X ay ay xeetu ay ay radiation la li ñu tuddee ay radiation ionisante loolu lay loolu lay euh, radiologie di utiliser mhm. donc xeetu technique d'imagerie médicale la xeexu technique euh, d'imagerie médicale dañuy des ci wàllu woowu ba léegi bu ñu waxee radiologie certainement am na niveau d'étude bi nga xamante ne spécialiste bi moom la war a def tey jii boo ñu doon wax euh, naka la ñuy nekkee un radiologue nan nga ñu koy expliquer. ok ah, jërëjëf euh, pour nekk radiologue am na mën naa wax ne am na am na am na ñaari yoon benn yoon bi bi nga xam ne moom la ñu ëpp di jaar. Mhm. mooy da ngay nekk docteur en médecine da ngay jàng da ngay am bac jàng médecine juróomi at. Mhm. soo noppee nga la ko jox spécialisation juróomi at. Mhm. kon daanaka muy fukki at ak ñett. Mhm. ndax di nga def juróomi at ku nekk docteur en médecine médecin généraliste soo noppee spécialisation radiologie. juróomi at. loolu booy xool mooy yoon bi xam ne moom la ñu ñu si ëpp jaar. te xool spécialiste yi ëpp na foofu la ñu génnee. xam ne. dafa mel ni moo gën a gàtt. Mm. moo yoon bi nga xam ne da ngay jaar si internat ndax internat benn concours la boo xam ne dañ ko ibil képp koo xam ne étudiant en mm-hmm. sa à partir de la boo fekk na sa sa jàng sax jeexagul. Mm-hmm. xëy na fekk na sax nekk nekkagoo mm-hmm. yoo xam ne du ñu ay docteur. parce que concours bi cinquième cinquième année nga koy tàmbali te boobu mm. donc boo jàllee concours internat boobu bala neexee def spécialisation rajo. mbaa mhm. dermato mbaa cardiologie boobu aussi yoon la pour def pour nekk radiologue. Mhm. mais yoon boobu nag mun naa wax ni euh, du indi ñu koy déjà a bi c'est un très sélectif. Mhm. ñi ci jël bariwuñu. et puis ñaareel bi aussi. ñi ci jël ñi ciy jël xëy na ñi def rajo du du bare. kon ba tax na ñi ci ëpp ci ay radiologue ils sont passés par la voie de la spécialisation. moom mm-hmm. am dañu diplôme ba d'état ba pare. Eh? nekk médecin mm-hmm. généraliste dem université inscrire des formations juróomi at boobu ma mm-hmm. justement par rapport à ça bu weesoo fànn boobu ndax euh, am na fi ay institut privé yoo xamante ne bu weesoo certainement université Cheikh Anta Diop bu Dakar wala yeneen école publique yi nga xamante ne dañ fay jàngale lépp lu di médecine ndax am nañu fi fii ay institut privé yoo xamante ne boo jàllulee ci concours bi nga xamante ne wax nga ko c'est un concours très sélectif avec un nombre xam naa restreint ndax mm. am na ñi nga xamante ne am nañu possibilité possibilité euh, am dem fay ji ci privé bi ngir mën a donc spécialisé wala ngir mën a def euh, métier bi nga xamante ne moom moo di la radiologie. Ah, loolu moom soxna si loolu moom loolu moom mënul nekk ndaxte euh, ndax ndax soit da ngay def internat comme ni ma ko mhm. wala nga dem inscrire université. Mhm. nga xam ne loolu diplôme université. moo ko moo moo moo moo moo moo moo ko yore. moo koy validé moo moo koy validé. mais amul benn école boo par exemple école privée boo xam ne mun na former spécialiste du du du radiologie rek spécialiste bu mu doon. y a que l'université qui les forme. maintenant par a des universités privées. yoo xam ne dañuy former des médecins généralistes. mais actuellement amul université boo xam ne day former un spécialiste. toutes les spécialités passent par l'université. Mhm. d'accord euh, docteur Mbodj dañuy farataal di dégg radio conventionnelle échographie mhm. wala imagine imagerie par résonance magnétique mhm. euh, tey jii rek ñu bëggoon taxaw ci ñett fànn yooyu lan mooy seen différence waaw comme ni nga ko waxee si njëlbeen ba yooyu nga lim yëpp en fait ce sont des d'imagerie médicale d'accord ndax li leen tax a jóg mooy xool doomu aadama bi càmbar yenn feebar yi wala ilaa sax faj yenn feebar yi mm. donc yooyu lim yëpp moo xam radio conventionnel la moo xam échographie la moo xam scanner la moo xam IRM nga xam ne moo gën a récent yooyu yëpp c'est des techniques d'imagerie médicale mm-hmm. li ko tax a jóg comme donc c'est pour à visée diagnostique à thérapeutique mm-hmm. différence mooy xëy li ñuy yi utiliser benn bokkul mm-hmm. deuxièmement aussi xëy seen seen seen seen seen seen du a càmbale doomu aadama bi am na si yoo xam ne moo gën a euh, mën naa wax ni moo gën a sori que yeneen yi. tey jii loo ko tuddee a exemple rajo conventionnel. Mm-hmm. moo doon wax sànq donc technique rajo yoo xam ne yu jëkk yi la. Mm-hmm. mooy maanaam ay ay ay rajo dëng wala ay rajo tànk wala ay ay rajo loxo te booy xool xeetu rajo la xam ne xam naa duñ si ñëwaat. xeetu rajo boo xam ne dafa dafa dafa dafa bari a inconvénients. Mm-hmm. parce que rayon X en fait ce sont des radiations ionisantes loolu soxna di signal incha allah si biir waxtaan bi. Mm-hmm. donc ni muy fajee noonu la mën a indee ay gàllankoor yu am solo si doomu aadama. Mm-hmm. bon ginnaaw ginnaaw euh, kii boobu ginnaaw euh, rajo conventionnel boobu ngay wax noonu. am nañu tuddee échographie. échographie tamit moom booy xool si technique d'imagerie yëpp mooy bi xam ne c'est la moins parce que day utiliser ay ultrasons. te ultrason amul benn nocivité. Mhm. donc am na scanner aussi c'est une technique d'imagerie médicale. c'est scanner comme comme la radiologie conventionnelle moom aussi ay rayons X-ray utilisé. Mhm. donc le scanner c'est encore autrement beaucoup plus agressif que que que que la radio conventionnelle. Mhm. donc technique bu bi nga xam ne aussi mën naa la ko wax te li mu ko léegi. mooy li imagerie par exemple magnétique nucléaire. boobu technique la boo xam effectivement technique bu moderne la. hôpital bi fa am barewul mm. ñun fii si Thiès ba léegi amaguñ ko mm-hmm. daanaka IRM bi am yëpp Dakar la nekk mm-hmm. donc technique boobu en fait si technique imagerie yëpp mooy bi nga xam ne moo ci gën a sedd ci doomu aadama du ma du ma du ma du ma si technique qui appelle au donc ndox bi nga xam ne moo nekk si doomu aadama moom lay si lay liggéey ba tax na amul benn possibilité ci patient bi donc ci gàttal technique d'imagerie médicale yi gën a gën a gën a siiw mooy mooy ñeent yooyu. Mhm. donc li seen seen jumtukaay bokkul mais li may fàtte aussi mooy technique bi nekk aussi xëy na am foo xam ne foofu la mënee. Mhm. xam nga tey jii par exemple rajo conventionnel di nga di nga di nga di nga di nga rajo yax yi. Mhm. mbaa bopp mbaa leen mais tey xam nga échographie. mu boo xam ne moo a tax a donte am na technique yoo xam ne mën nga leen utiliser fii utiliser leen fële mais am nañu lu ñuy tuddee de prédilection. Mhm. parce que organe bu nekk si doomu aadama am na technique xam ne pour caytu ko boobu noonu moo xëy boobu noonu li mu lay indil si ay éclaircissement yeneen technique yeneen technique du du ko indil. Mhm. Euh, d'accord docteur euh, dañuy des rek ci li nga xamante ne moo moom moo di wàllu woowu euh, expli expliqué ko expliqué nga ko en en détail par rapport ak différentes stratégies mais dama buggoon rek ñu taxaw ci li nga xamante ne moom moo di rajo conventionnelle amaana ba mm. moom mooy bi nga xamante ne moom mooy bu traditionnel bi wala bi nga xamante ne daanaka moom moo gën a yàgg quand parle de la radiologie waaye nag ñu taxaw ci fi nga xamante ne moom mooy gàllankoor yi nga xamante ne mun na ko juural askan wi ñu taxaw rek foofu docteur nga gën ñu ko yaatalal. waaw question boobu moom question bu am solo la ndax euh, doomu aadama de façon générale wàllu médecine il faut xam ni waxuma sax radiologie mm-hmm. même paracetamol bi ngay naan ni mu a fajale bopp metti noonu la mu lay ay problème res mm-hmm. donc amul garab boo amul aussi médecine boo xam ne dafa li euh, mu euh, loo xam ne amul amul amul amul amul benn inconvénient. Mm-hmm. rawatina nag bu ñuy radiologie. Mm-hmm. parce que léegi wax naa la ko euh, radiologie conventionnelle day utiliser ñu tuddee ay rayon X. Mm. donc rayon X boo ko soo ko bëggee xam en fait ce sont des rayonnements comme yéen comme comme comme yéen yi seen ah, utiliser ay rayonnements parce que seen seen seen onde yi ngeen yéen xëy na yéen seen rayonnement yi ce sont des rayonnements énergie. Mm-hmm. moo tax yéen xëy na du leen leen yi mais mais rajo rajo conventionnelle nous on utilise des rayonnements de haute mm-hmm. ndax rayonnement yooyu moo tax li ñu li ñu bëgg ñu mun ko am. donc haute énergie boobu nag dafa am dafa ànd ay ay naa wax ni ay ay ay ay gàllankoor ci doomu aadama ba tax na loolu il faut que xam ko parce que dañuy gis par hôpital yi la docteur Sow mu doon day defal ma rajo docteur sama tànk dafa mën a fekk jaarul si médecin amul prescription amul dara. Hmm. yenn saa yi sax yenn médecin yu sàggani wala yenn technicien yu sàggani dafa la rajo duñ duñ si def sérieux bi si war nga ñëwaat di jël si service ñu ah, bi sa rajo bi da baaxul kaa defaat ko. Hmm. mel ni ku la jox ay tàngal te saa yu tëddee si taal yaa nga jël ay doses yoo xam ne baaxul sa yaram. Hmm. ndax radiologie ndax rayon X li gën a bon ci li li li gën a xam te muy feer bi gën a rëy mooy day di cancer. Mm-hmm. loolu ñëpp d'accord nañ ci. Mm-hmm. loolu ñëpp d'accord nañ ci xëy na nag doo def benn rajo wala ñaar rajo am cancer mais li wóor ba wóor mooy y de des cancers qui sont radio induits. Mm-hmm. loolu am la. te xëy na booy xool peut-être mooy li si gën a graaw. mais ginnaaw cancer boobu ma lay wax am na yenn xeetu feebar yoo xam ne daf koy indi. Mm. dina indi euh, lu ñuy tuddee par exemple ay feebaru der. ay ay ay sa ay picc mbaa mbaa muy mbaa deretal. mbaa mu def ay góom mm-hmm. ay xeetu feebar jar yu bari bari rajo bi dina ko indi mm-hmm. rajo yi dina indi tamit yenn saa yi bu bu bu dose accumulé woo ay ay ay ngay ngay sa mel ni ku am ay ndel fond yooyu ay pe lu ñu tuddee perte des cheveux daf koy indi day indi ay leucémie euh, mm-hmm. am na sax yo yenn xeetu rajo yoo xam ne day lakk sa yaram dafa mel ndawal booy toogu kon daal si gàttal liste la liste exhaustive mhm. mais bari na ay gàllankoor yi bi indi si doomu aadama mhm. ba tax na il faut que nit xam ne rajo rawatina radiologie conventionnelle boobu ngay wax du ay mbi mbiru caaxaan bañ nañ ko ba suñu bureau yi dañ koy plombé mhm. parce que plomb boobu mooy téye rayon X yi bañ mu génn mooy téye mooy téye mooy def même les portes ce pas du bois da bu nga xam ne bant la mais boo ko jë jéemee pousse di nga xam ne kii du du bant normal yoonu à l'intérieur on a mis du plomb. Mm-hmm. loolu nag lu jar a wax la question boobu te lu jar a xamal nit ñi la. Mm-hmm. allez-y ndax day ñëw ba si da da da ciy bind sax da ciy bind attention danger. Mm. waaye xam nga Sénégal rek mooy dëkk boo xam ne nga baal ma soxna si mooy lu waay neex da mm-hmm. nga xuloo ak ñoom pour pour dàq leen ci buntu buntu poste mais day ñëw ba si buntu poste ba ñu teg fa. Mm-hmm. kon daal ci gàttal mun naa la loolu donc ba ni muy fajee rajo ni muy jàppalee médecin bi ci diagnostic am mais nag il faut le dire à côté aussi bien technicien bi kay def que malade bi que même sax ñuy accompagner malade bi ndax mos fii Sénégal moom kuy indi malade da ngay indi benn malade ak fukki nit mm-hmm. te si buntu bi mu mu la sama malade laa te bu ñu te bu ñu waxante rek aussi suñu suñu suñu suñu service yi répondre ñu aux normes techniques yi nga xam ne moo war pour rayon yi bañ a génn ci saal yi mm-hmm. donc loolu yëpp euh, ay gàllankoor la yoo xam ne comme ni ñu ko limee léegi mun na mun nañu ko jëlee si radiologie conventionnelle mm. donc il faut que ces auditeurs yi xam ko aussi il faut que personnel santé bi aussi xam ko mm-hmm. parce que doomu aadama dafa sacré mm-hmm. mais dañ dañ defar tey lundi nga ñëw maa dañu la rajo bi yàqu baaxul woon mais liggéey boo koy def rawatina si doomu aadama rawatina si domaine wu rayon X da xam ne kii saa yu tëddee ci taal bi yaa ngi koy posone mm. parce que rayon X ay poson la. Mm-hmm. dañ koy def parce que ñàkk pexe la. Mm-hmm. parce que dafa ñuy jàppale mais mais c'est c'est mortel. Mm-hmm. donc loolu vraiment il faut ñu xam ko. d' accord d' accord docteur Mbodj wax nga ko ci sa biir wax ah. léeg-léeg nga gis koo xamante ne dalay wax sama lii day metti sama tànk day metti wala sama dënn day metti defal ma rajo mais bi ñu xamee bu ñu moom bu ñëwee ba ci kër docteur di bëgg a ñu defal ko ko te amaana ma amul prescription médicale médecin bi nga xamante ne moom moo jël responsabilité defal ko li nga xamante ne moom moo di rajo bi tey jii la responsabilité se situe où dafa mel ni côté boobu kon dafa am euh, absence de communication bi euh, particulièrement ci patient bi nga xamante ne moom jàpp na ne Ndiokhor njaay rek war na mën a dem hôpitaux ñu defal ko lii di rajo. gis nga soxna si question bi ngay laaj dafa am solo. Mm. parce que niveau de communication boobu ngay wax. balaa nga naan diggante médecin bi ak patient bi commencé diggante médecin bi ak médecin bi. Mm. am na médecin yoo xam ne nga baal ma ci wax ni xam ñu sax indication rajo tey jii ma nga xamante yow nii tey jii en deux mille vingt a des ay radiographie du crâne pour pour ay accidenté. radiographie du crâne. waaw pour pour que ñu ko accident. mooy rajo bi bi bi ñuy def pour bopp xanaa parce que crâne mooy tête bola bopp. mooy mooy pour bopp bi. waaw loolu dafa xewi te xel te xam-xam dafa dafoo dàq. d'accord. donc yow balaa ngay wax diggante médecin bi ak accompagnant malade bi. Mm-hmm. wala médecin bi ak malade bi tàmbalee par médecin bi mm-hmm. ndax foofu sax d'accord te te li nga wax am solo ñun yoon may nañu médecin demandé wax ma la sax malade bu ñëw sans prescription wax ma loolu médecin def prescription ñu jóg ñu ne ko duñ def mm-hmm. loolu yoon may nañu ko mm-hmm. ma diggante rajo ak kii ak malade bi de mm-hmm. diggante benn médecin diggante ñaari médecin yi ñaari médecin waa kay d'accord yoon def sa këyit man la du ma ko def parce que rajo bi dunul si malade bi mm. léegi nag diggante médecin bi nag ak ak bi man je pense que malade yooyu ne la defal malade yooyu nga defal ko ça c' est de l'irresponsabilité te loolu lu ci dal malade bi bu ñu porté plainte di nga dem si kaso bi. Mm-hmm. loolu lu am la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que loolu xel daf ko nanguwul. bu doon question rajo sax ak domaine bu nekk si médecine. bu nit moo doon defal ma kon bu doon loolu ñëpp nekk ay médecin. malheureusement li wax daal dafa am. Mm. parce que parce que Sénégal la ñu nekk nit ñi seen doole demewul noonu dañ dañ naan balaa mooy defal bulletin ma fay ko cinq mille francs ma fay ko dix mille francs xaaral ma jubal directement fii defee rajo mais bu fekkee amoo suuf la bopp ba a da nga naan rek ah kii day xaaral ma jàppale ko rek xam ne ba dafa dafa ko rajo bi alors que defal rajo bi mais faw médecin gis parce que rajo bi c'est juste une aide au diagnostic donc li nga xel nangu mooy day jaar ci médecin ba pare mu am prescription boo xam ne c'est une prescription qui est licite. Mhm. nga jox ko radiologue bi même si la prescription n'est pas licite le du du ko du ko def. Mhm. parce que lii gënu ci bi la war a def. Mhm. te li ma lay wax nii nag bés bu nekk dafay am. Mm. bés bu nekk ñu renvoyé ay malade lu nga fay ba pare dana dana delloo seen xaalis parce que li leen seen médecin bi laaj lii war war di ko di ko di ko mën def. ok d'accord dans ce cas de figure docteur responsabilité bi ça incombe à qui médecin yi la wala au niveau donc des autorités wala parce que apparemment euh, bu ñu demee ba nga xamante ne comme wax nga ko radio de la crane c'est c'est c'est c'est c'est c'est dépassé te au même moment donc ñu ngi koy continuer di prescrire ndax foofu amul fay quelque part ci suñu système sanitaire naka nga ñu ko mën a jongalatee non non non non loolu loolu le système sanitaire n'a rien à voir avec ça. yoonu système sanitaire nekku si. système sanitaire dafa dafa la jox ay ay jumtuwaay. nga utiliser ko. donc médecin bu sàggan ba xamatoo looy laaj. kooku moom kooku moom c'est responsabilité individuelle la. d'accord loolu responsabilité individuelle médecin bi la. ça c'est la carence du médecin. d'accord. mais yoonu système santé sax nekkul nekkul ci loolu. Mhm. vraiment il faut dire mhm. euh, mm. ñu doon taxaw ci li nga xamante ne moom moo di gàllankoor bi jur li nga xamante ne moom moo di radio conventionnelle ak jàngoro yu ci mën a am lu ci mel ni cancer wala maladie de la peau ak yeneen xeetu jàngoro yi ndax euh, conséquences yi ñoom ñoo bokk par rapport ak yeneen yi bu ci mel ni imagerie par résonance magnétique wala échographie wala bu conventionnel bi rek. nekk moo ëmb ay conséquences allez-y docteur Mbodj. waaw si si si gàttal daal si gàttal. Mhm. mun naa ko a naa ko scinder en quatre mun naa ko scinder en trois parties. allez euh, parce que euh, radiographie radiographie conventionnelle ak scanner ñoo bokk li utiliser. Mhm. mooy ñu tuddee ay rayon X. te de définition rayon X mooy mooy ñu des radiations ionisantes. Mhm. donc c'est des radiations comme ni ma ko waxee haute énergie. parce que bu duggee si parce que bu duggee si biir euh, nit nit ki day indi ay coppite ci si cellule nit ki mm-hmm. donc loolu dafa laaj dafa laaj énergie boo xam ne dafa am doole mm-hmm. donc yooyu mooy rayon rayon X mooy rayon conventionnel mooy scanner donc yooyu techniques yoo xam ne c'est techniques qui sont très très très très très très l'escanner encore moo gën a agressif que que que que que que que que que rajo conventionnel. Mm-hmm. si xayma par exemple ñu naan par ni ko def benn scanner mi ngi mel ni def nga dix rajo. Mm-hmm. xam nga loolu xam nga loolu xam nga loolu du caaxaan. Mm-hmm. donc loolu euh, il faut ñu bàyyi si xel. sax wax naa la ko aussi échographie moom ñi ko waxee comme comme ni ko waxee dafa am l'échographie ça a une parce que en réalité li muy utiliser mooy ultrason. te ultrason à la limite li mu def mooy tàngal sa yaram rek. mais amul benn conséquence. si doomu aadama. donc tu peux l'utiliser a volonté. mais amul benn conséquence fâcheuse majeure. IRM aussi imagerie par exemple nucléaire comme l'échographie c'est une technique boo xam ne elle est parce que ay utiliser wul utiliser wul ay rayon X. magnétisme lay utiliser. day mel day day day dugal ko si lu ñu tuddee benn champ magnétique. Mm. champ magnétique boobu mooy yëngal ndox bi nga xam ne moo nekk si doomu aadama. Mm-hmm. léegi loolu di yëngatu day dégagé benn énergie. Mm-hmm. léegi énergie boobu la ñu jël codé ko si benn signal pour interprétation IRM bi. Mm-hmm. donc technique la boo xam ne ci suñu technique moderne boo xam ne amul benn vraiment euh, euh, euh, inconvénient fâcheux surtout si doomu aadama bi. Mm. mu mel ni kon euh, rajo docteur euh, ci ban ci ban moment wala ci ban ci ban moment la ko doomu aadama bi di ko gën a gën a gën gën a gën a si lañ ko koy prescrire médicalement parlant bien sûr. waaw amul c'est pas bu dee bu bu fekkee ne da nga bëgg a si par rapport ak âge amul amul amul âge. Mm-hmm. que même liir bu liir bu day day day day defar rajo. Mm-hmm. donc donc donc saa yu feebar amee mu nga mu nga defar amul amul amul contre indication par rapport a l'âge mm-hmm. parce que même lire dañ koy defal jox mm-hmm. par contre am na état yoo xam ne c'est déconseillé mm-hmm. mu ci mel ni par exemple par exemple jigéen bu yorul nekk bu fekkee ëmb bi jàppagul bu baax dañ koy dañ koy dañ koy aaye d'accord wala boo fekkente ne dañ koy def def def ba nga xam bi mais boobu day fekk ni vraiment ñu xam ne suñ ko deful mun na indi benn loraange bu gën a garaaw loolu mm. mais autant que faire se peut si façon malade di di yéen wérul mm-hmm. parce que mun na li li li li li mu Mm. d' accord d' accord docteur dañuy wax rajo rajo rek mais mu mel ni dafa am ay pàcc bu wee bu weesoo rajo bu ñuy faratal di dégg mu mel ni am na lu ñuy duppee radiologie pédiatrique bu ñu waxee mm-hmm. pédiatrique moom xel yëpp dafay daal di dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tout tonk yi tey jii mm-hmm. lan nga ñu mën a wax ci boobu les pàcc bi nga xamante ne moom soxal lépp lu jëm lépp lu jëm ci wàllum radiologie waaw léegi bu fekkee ne si wàllu technique bi la. Mhm. amul benn différence. Mhm. parce que dañuy comme comme ni ma ko waxee léegi liir dañ koy rajo. Mhm. liir dañ koy def échographie liir dañ koy def scanner. màgget dañ koy def échographie màgget dañ koy def rajo mag dañ koy def scanner mag dañ koy def technique bi amul benn problème xëy na problème bi mooy si wàllu interprétation bi ak si wàllu liir bi parce que comme koy waxee l' enfant c' est pas un adulte en miniature. Ça, il faut le savoir. Mm -hmm. L'enfant n'est pas un adulte miniature. Parce que donte mag am na xol xale am na xool mag am na tànk xale am na xol am na tànk mais doomu aadama bi ni muy fonctionner c'est totalement différent ba tax na bien vrai que am na ay radiologue mais y a des radiologue radiologue xam ne dañoo spécialisé wu si xale. Mm-hmm. ndaxte c'est des c'est des c'est des yoo xam ne dafa bari ay différences. Mm-hmm. parce que parce que dafa am ay spécificité par rapport ak xale bi ni koy ni yàlla bindee xale bi ak li li nga xam ne mun ñu ko a xam mooy doomu adama nu mu bindoo hmm. parce que balaa nga interpréter rajo il faut nga xam doomu adama nu mu bindoo hmm. boo xamul lu normal doom nga xam lu anormal hmm. donc ay domaine la spécialité à part Mais au point de vue des techniques, c'est les mêmes techniques qu'on utilise. D'accord. Mhm. docteur ñu taxaw ba léegi ci wàllum radiologie tey jii dañuy wax euh, rajo rajo rajo radiologie certainement benn pàcc la ci li nga xamante ne moom moo di wàllum médecine mais bann apport la radiologie di am ci lu ñuy duppee médecine générale. waaw euh, euh, euh radiologie en fait c'est la pierre angulaire de la médecine. maanaam. mooy tey jii bu doon da ngaa tabax sa kër poto yi koy yittee yittee toit bi boo ko boo ko doon compter mhm. parce que ñi tuddee de parce que parce que radiologie c' est pas un service technique. Mhm. maanaam ñun du ñu jóg di faj ay malade. Mhm. mais li ñuy def booy xool mu ëpp solo parce que kiy faj ñun ñoo koy ñoo ñoo koy wax yoon bu muy jaar. yéen a koy orienté. ñoo koy orienté. donc la radiologie c' un service médico technique. comme le laboratoire, comme la pharmacie, ce sont des techniques, ce sont des services médico-techniques. Mm. Donc, radiologie, c'est un service, un service transversal. Mm-hmm. mooy service boo xam ne su hôpital bi ñëpp ñoo koy soxla. Mm-hmm. amul service boo xam ne di nga liggéey suba ba ngoon te te doo mm-hmm. donc radiologie dafa am solo si fonctionnement d'un hôpital. un hôpital moderne très bon service de radiologie. donc un hôpital qui a qui n'a pas de physiologie en fait c'est coquille vide. Mm-hmm. wala boog da ngay faj faju làmbaatu. Mm-hmm. te nag en deux mille vingt et un faju koy def moom jàppal ni bés bu nekk cinquante mille kaso. Mm-hmm. ndaxte de plus en plus les malades sont exigeants la médecine et puis ils ont raison aussi. ils ont raison. d'accord euh, ñuy dégg souvent médecin urgentiste xam naa ne sax li ngeen di euh, bokk liggéey bëri na tey jii mm. bu ngeen ñu doon wax radiologue bi ak médecin urgentiste bi euh, mm. seen liggéey wala seen partenariat ci ci ci lan lay focaliser wu seen liggéey fan la commencé ak fan la yem. waaw radiologue yi moom dañuy dañuy dañuy liggéey ak ñëpp mm. moo xam médecin urgentiste bi la moo xam chirurgien bi la moo xam traumatologue bi la. Mm. moo xam cardiologue bi la. donc ñun ñëpp la ñuy utiliser mais. Mm-hmm. par exemple waaw waaw maa ngi dégg waaw. bon comme par mm-hmm, exemple. comme par exemple comme par exemple le médecin urgentiste nga xam ne ñoom en fait il gère le pronostic vital. Mm-hmm. parce que bu dee médecin urgentiste day nekk loo xam ne dafa dafa jàmp. mais souvent au Sénégal ay pathologies cardiovasculaires yi on peut dire que ñoo ñoo nekk au devant. Mm. donc sur ce plan là radiologue yi dañu si baax a baax. moo xam si wàllu si wàllu scanner bi par exemple bu ñuy bu ñuy bu ñuy suspecté ay ay embolie pulmonaire wala ay ay ay parce que euh, urgentiste si souvent ñoom dañuy gérer ay ay ay ay pronostics vitaux te dans ces circonstances yooyu bi daf si am importance bu am solo rawatina si côté scanner. Mm. donc effectivement suñu collaboration ak urgentiste de même au même titre que avec toutes les autres mm-hmm. donc c'est collaboration qui est très étroite. Mm-hmm. Mhm. d'accord docteur euh, Mbodj dañuy farataal di dégg aussi expression bi ñuy wax euh, manipulateur radio xam naa ne en terme euh, médical expression bi gën a mën a lourd mais pour ñi ñuy déglu déggin bi gën a oyof ci ñoom moo tax ñu jël bi nga xamante ne moom moo di manipulateur radio tey ji manipulateur radio ba xam dafa am différence ak radiologie de manière générale waaw euh, manipulateur rajo ak euh, nu euh, laa ko tuddee ak technicien en imagerie médicale ak technicien radiologie en fait ay ay ay synonyme mm-hmm. mm-hmm. manipulateur ak technicien c'est juste une question d'appellation. d'accord ñun au Sénégal en réalité on parle de technicien en radio en imagerie médicale. technicien en imagerie médicale. donc le terme de manipulateur en fait c'est un xam ne. Nous, on l'a pris de la France. D'accord. Parce qu'ils ont fait la dichotomie entre technicien et manipulateur. Mhm. ñoom ñii dañuy dépendre du ministère de la santé. Mhm. manipulateur yi. Mhm. technicien yi dépendre du ministère de l'enseignement supérieur. mais boo xoolee si wàllu liggéey même liggéey bi la. nga wax manipulateur ko la nga wax technicien animateur yi même même chose bi la. c'est c'est la même profession. ñoo ñoo ñoo bokk domaine d'intervention. ñoo ñoo ñoo bokk la ñuy def. Mm-hmm. ñoo bokk la même ñun sax yenn saa yi si bu ñu bu ñu manipulateur yenn saa ñu wax technicien c'est en fonction rek. Mm-hmm. mais mais c'est la même chose. Mm-hmm. c'est juste un problème d'appellation. ñooñu ñëpp ils ont ils ont xam naa dañ si parce que c'est un problème très important. la formation des des techniciens des manipulateurs. après xam naa incha allah bu neexee dañ si ñëwaat ba émission d'accord. par contre am na loo xam ne boo ma maye mayee bëgg naa parce que man sax dama yàkkoon question boo nga bay laaj. Mm-hmm. le terme dette manipulateur. le terme. dette manipulateur dette manipulateur waaw waaw. allez-y xam naa ne xam mos ko dégg. Mm, dégg naa ko waaw. c'est un terme qui n'existe pas. Mm-hmm. xam au Sénégal on crée tout. d'accord. mais aide manipulateur amul. Mm-hmm. bon am na y' a même appliqué à Dakar am na am na ay écoles yoo xam ne dañu ay aide manipulateur Mm-hmm. mais dans tous les cas amul diplôme bu nga xam ne état Sénégal di ko reconnaître mm-hmm. ñun nag je le reconnais suñu hôpital yi on a un problème de technicien xam naa loolu di loolu dinañ si ñëwaat mm-hmm. question boobu moo tax dañuy former ay xale am xale yenn niveau yi am dem université faf yàlla daf ñu cartouché ñu former leen ay aide boo xool si service sax bu la waxul ne kii aide la yow da technicien Mm-hmm. parce que ñoo bokk lépp lu ñuy def. Mm-hmm. mais en fait ñoo ñoo leen on les a formés comme on dit sur le tas. Mm-hmm. parce que ay nit la ñoo xam ne am na yenn prédisposition yi am na yenn niveau yi ñu jàppale leen jàngal leen ko ba ñuy def liggéey boobu on les appelle des aides manipulateurs. d'accord mais c'est pas une profession boo xam ne qui existe en termes de am na école bu leen di former. d'accord loolu aussi il faut d'accord amul amul spécificité. non voilà c'est ça waaw. d'accord d'accord mm. ñu ñu ñu taxaw ci ci ci li nga xamante ne moom moo di manipulateur rajo wala. Mm. Euh, ñi nga mm. xamante ne ñoom ñoo di technicien en imagerie defe naa ba mu juumulee loolu mooy appellation bi fii ci ci Sénégal. tey jii rek euh, lan nga ñu mën a wax euh, ci ñoom seen seen seen seen seen formation seen niveau d'étude ak effectivement seen formation au niveau donc de la radiologie. waaw ñooñu booy xool le les techniciens alimentaires yi parce que parce que ñun radiologue yi ñun mu naa wax ni mënuñu dem sans ñoom. parce que ñun je peux dire que à part l'échographie bi nga xam ne échographie bi faw ko toog defal ko malade bi mm. donc à part échographie boobu wala IRM bi pratiquement technicien bi sax mën na liggéey ba wàcc yo nga ñëw liggéey. Mm-hmm. parce que ñoom ñooy technique ñooy ñooy c'est eux qui font les techniques. Mm-hmm. ñooy ñooy ñooy def yi. booy def scanner ñoo lay installé ñooy enregistré malade bi ñooy indi image yi. Mm. parce que ñun ñun radiologue yi on travaille plus sur les images que sur les hommes. Mm-hmm. à part l'échographie pratiquement nous on travaille que sur les images. donc ñun on a même pas à la limite on a même pas besoin di fa fekk malade ba sauf échographie. Mm-hmm. donc technicien dafa am solo système imagerie médicale. Mm-hmm. parce que c'est eux ñoo ñoo ñoo c'est eux qui font toutes donc dafa nekk ñi ñoo xam dañoo xarañ. Et pour preuve, mm -hmm. il a déjà 15 ans, le niveau, c'est le bac. da doon am bac plus trois ans def concours direct ñu formé la nga nekk mais depuis à peu près dix ans dañ ko changé mm-hmm. léegi pour être un technicien au Sénégal da ngay nekk sage-femme d'État mm-hmm. mbaa nga nekk infirmier d'État mm-hmm. liggéey deux ans def concours professionnel xam nga donc c'est devenu plus sage-femme d'État ba nga nekk infirmier d'état liggéey deux ans def lu ñu tuddee concours professionnel. Mhm. léegi actuellement le concours direct a a été annulé. Mhm. le concours direct amatul léegi. donc ñoom foofu la ñuy jaar pour def formation à technicien. Mhm. moo xam technicien imagerie la waa technicien laboratoire ma benn ma benn section. donc loolu loolu loolu loolu loolu la ñuy formé. donc maintenant loolu c'est vrai que dina gën a formation bi mais am na inconvénient. Mhm. allez-y ci inconvénient bi waaw. inconvénient bi on a de moins en moins de techniciens. Mhm. tey jii ba la waxee tey jii boo defoon offre au Sénégal y a pas un technicien animateur qui est en chômage. Mm, mhm. actuellement état bi dafa dafa recruter ay techniciens mais amatul technicien mu recruter. parce que système bi bi bi devenu plus dur. plus dur. donc si si dañ ko gën professionnel donc ñi ñiy présenté wu du ñu bëri. Mm-hmm. donc am na aussi yenn problème yoo xam ne du ma si ay problème d'équivalence de diplôme yoo xam ne daf si am depuis trois ans même le concours la kenn organisé wu ko depuis trois ans. problème d'équivalence de diplôme vous avez dit. c'est ça waaw parce que xam nga xam nga actuellement avec le système LMD. Mm-hmm. xam nga les techniciens en imagerie médicale actuellement soit des infirmiers comme ni ma actuellement teg fii dañu leen mettre dañu leen mettre à la même hiérarchie que les techniques que les sages et les infirmières ce qui n'est pas normal. Mm-hmm. parce que infirmier ak sage-femme encore deux ans su génnee ce qui est normal mooy sa hiérarchie a gën a mag que sage bi wala infirmier bi bi mu nekkoon. Mm-hmm. donc loolu ça pose actuellement un problème sur le plan législatif. Mm-hmm. donc les donc les gens ont refusé de faire la, la, la formation. donc depuis trois ans formation boobu amul. donc déjà loolu rek. encore benn facteur la bi tax bi expliqué ni y a une pénurie de techniciens sur le marché. Mm-hmm. donc c'est un peu ça c'est difficile. loo booy xool sax loolu moo actuellement ñuy former ay admi d'accord. parce que dans le marché y en a plus. Mm-hmm. c'est mhm. mu mel ni ñoom seen liggéey am na solo lool waaye seen lim daanaka euh, tax koo demee noonu docteur Mouhamadou mhm. Mbodj bu ma la déggee bu baax a baax mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ni moom moo di docteur Mouhamadou Mbodj mu nekk médecin radiologue waaye tamit nekk chef du service d'imagerie médiatique d'imagerie médical d'imagerie médicale foofu ca hôpital euh, bu Thiès dañuy des ci wàll woowu ah, ba léegi mais tey jii rek euh, docteur Mbodj dañu bëgg rek nga wax ñu quand on parle de radiologie euh, la radiologie au Sénégal comment est-ce que cela se se, se ci ci guddi yu ñu toll. waaw vraiment madame pour dire la vérité la radiologie au Sénégal se porte mhm. parce que nit ko aussi da ngay wax ngir yàlla. parce que y' a il fut temps mënoo dem si benn région. fekk fa deux radiologues man quand je venais à Thiès j'étais le le seul radiologue public de la région de Thiès. Mm-hmm. le seul fonctionnaire bloc si mm-hmm. parce que y avait pas de radiologue beaucoup de affaire y avait pas un homme suffisant dans le marché parce que euh, formation bi naa ko sànq si njëlbeen ba. dañ mm-hmm. si ëpp donc ce sont des médecins généralistes yoo xam ne ils ont choisi spécialisé en imagerie médicale. Mmh. Donc, dans les temps, pour dire la vérité, les patrons, ils préféraient jël ay étranger. dañu fa am na quinze personnes mais les treize personnes ñi ay marocains la ñu ñi ay tunisiens ñi ay lii y avait que un ou deux sénégalais. Mhm. au début quand même y avait pas de de de de en radiologie au Sénégal lu bari. Mhm. parce que les étrangers payent plus. maintenant depuis quelque temps ça a changé te loolu il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. Mhm. loolu bu amee la responsabilité elle incombe au professeur El Hadj nga xam ne mooy patron radiologie au Sénégal. Mm-hmm. parce que moom ba mu ñëwee toutes les promotions qu'il a eu à former pratiquement di fa gis ay vingt sénégalais. Mm-hmm. donc loolu te loolu c'est depuis depuis depuis deux mille huit. Mm. donc depuis deux mille huit boo xoolee chaque année nga am vingt nga am chaque chaque chaque quatre ans nga am euh, à peu vingt vingt yu déjà c'est quelque chose. Mm-hmm. si bien que au point de vue quand même mi ça s'améliore mm-hmm. bien bien bien vrai que des na lu bari mm-hmm. pour preuve à Thiès par exemple on n'a que deux médecins radiologues mm-hmm. deux deux deux deux deux deux médecins radiologues pour pour l'hôpi pour l'hôpital de Thiès pour tout l'hôpital de Thiès d'accord xam nga loolu xam nga loolu ndaw na te su ma su ma nee deux médecins radiologues pour l'hôpital de Thiès da nga jàpp deux médecins radiologues pour la région de Thiès parce que hôpital parce que Thiès benn hôpital de France amul hôpital régional de Thiès ay ay xombal ak ay Tiwaawan Tiwaawan sax waa Tiwaawan récemment ils ont eu un médecin mais dans tous les cas médecins yi doyul bien vrai que ça s'est amélioré maintenant au point de vue des, infrastructures aussi les choses sont améliorées parce que aussi pratiquement dans toutes les aujourd'hui dans toutes les capitales régionales am na scanner nous actuellement a on a deux scanners mm -hmm. donc ils ont un scanner donc pratiquement scanner bi ko commencé di ko démocratiser Mm-hmm. mais à ce niveau-là le problème qu'on a c'est un problème de formation de la maintenance des maintenanciers. maanaam ci ci ci ci ci wolof. ci wolof mooy day am problème ñi nga xam ne ñooy war xeetu xeetu appareil yi nga xam ne ay appareil yu moderne la ñi koy réparer bu paanee ñu leen tuddee ay maintenanciers xarañteef bi ñu war am amuñu ko. Mm-hmm. ndax suñu hôpital yi ba léegi amatul amagul ay ingénieur yoo xam ne dañuy dañ leen former pour loolu. Mm-hmm. ñi ma nekkoon temps yi xamee ne. ay rajo yi yàgg yàgg ña fa nekkoon ña fa nekk ba léegi. Mm-hmm. am nga ñooñu daanaka mën naa wax ne ñu si dara. Mm-hmm. parce que amuñu formation boobu. Mm-hmm. léegi sa scanner dafay panne déjà ñu dafay lu cher pour ñu réparer ko parce que dañu jógee Dakar pour ñëw. te même amul xaalis sax pour ñu réparer ko. da ngay bind ay lettres toog di xaar. donc boo farluwul wala nga am say nga am say am sa ay réseau bopp mun nga panne deux semaines kenn doon de panne. donc loolu aussi seen problème boo xam ne. c'est un problème que nous rencontrons. Mhm. te loolu il faut que état bi xam ko il faut que état bi dans les hôpitaux wala boog si hôpital yu mag yi dans les hôpitaux régionaux mu def fa de ingénieurs biotechniques. Mhm. parce que actuellement avec la numérisation des appareils il faut ñu am ay xeetu maintenanciers yu bees ay maintenanciers yu xarañ. Mhm. te li ma la wax nii Thiès moo am Dakar. Dakar boo fa demee par nga xam ne IRM bi fa nekk hôpital Fann li muy moo ëpp li tout à fait. parce que technique yooyu dafa laaj dafa laaj maintenance bu baax. Mm. il faut am maintenance préventive doo xaar ba mu feebar ñu di ko faj. Mm-hmm. da chaque mois wala chaque ñaari weer damay tëj benn fan ma ma ma xool ndax am loo xam ne su ma ko bàyyee dina gàllankoor liggéey bi. Mm. te loolu il faut de il faut il faut dafa pétentiel yu baax. Mm-hmm. donc je pense que c'est vrai que affaire bi amélioré na personnel bi gën naa bari mat mat matériel bi gën naa bari mais euh, maintenance bi des na. Mm-hmm. loolu daal bokk na si loo xam ne xëy na dina dinañ changer tuuti au niveau du travail. Mhm. Euh, justement docteur Mbodj par rapport ak maintenance boobu ngay wax moo des euh, difficulté bi wala jafe-jafe bi ci ban ci ban côté la la nekkee bu fekkente ne ressources humaines bi doonte matul mais mu ngi fi waaw non non effectivement la première question c'est les ressources humaines. Mhm. ressources humaines yi nekku fi. nekku fi. parce que dans nos hôpitaux comme ni ma ko waxee on a des gens yoo xam ne ay niveau BTS la ñu am. ñooñu mu ñu téye euh, service d'imagerie médicale. mun nañu am volonté bi mais xam-xam boo ko amul amuloo ko. déedéet. wa ilaa danañ jël nga xool ñi ci ñi ñi ci gën a am Pastef nga yóbbu leen ñu formation supplémentaire wala boog nga wut benn ingénieur dénk ko service bi mu jàppale xale yooyu. donc loolu déjà c'est un problème donc boo xoolee di nga am service de maintenance ay nit ñu bari bari bari bari mais genn wàll gi ñëpp dañ ñëw di taxawaalu rek saa yoo paane ñu lay dépanne du duñ liggéey ci hôpital mhm. donc loolu loolu problème la mhm. donc donc loolu c'est un problème mhm. deuxième chose bi mooy il faut que état xam nécessité que li ñu koy wax ni c'est pas pour ay dépenses supplémentaires parce que scalaire bi deux cent cinquante millions nga chaque mois mu panne état bi jënd jënd ko loolu loolu loolu perte mm-hmm. donc au niveau au niveau de la DIEM nga xam ne ministère la ñuy nekk ñooy division bi nga xam ne moo yor infrastructure ak appareil yi il faut ñu xam loolu. Mm-hmm. il faut ñu investir ci ingénieur dans les hôpitaux. Mm-hmm. loolu loolu dafa am solo. parce que appareil yi ñu jënd parce que appareil imagerie dafa cher dafa cher. table rajo bi gën a yemambaay mi vingt cinq millions. scanner. millions. Mm-hmm. ak yéen ak yéen. Mm-hmm. loolu sax day ma fàtte te xam naa ne moom soo ko xam naa di di di di ma mel yéen soxna yi. Mm-hmm. ba ñu a sànq a ñu wax sànq a technique d'imagerie. parce que dafa la fàtte wax mammographie. xam naa ne yow soxna yi xam naa di di di ñu mel parce que am na dafa solo si yi. loolu aussi dafa am solo loolu aussi day utiliser ay rayon X. ay rayon X ah, mammographie waaw ah. waaw mais nag dafay utiliser ce qu'on appelle des rayons mous. Mm-hmm. parce que mammographie c'est vrai rayon X la mais c'est pas des rayons qui sont très durs. Mm-hmm. donc c'est pas aussi inoffensif offensif c'est pas aussi euh, dangereux que mm-hmm. médicale boo xam ne day day tax ñu ñu ñu ñu xool jàngoro yi nga xam ne day nekk ci jigéen donc loolu dafa am solo tamit mammographie. boobu aussi benn xeetu technique médicale Hmm. docteur Mbodj wax nga ko ressources humaines bi eh, taxu koo demee noonu ak i tamit li nga xamante ne moom moo di maintenance bu soxal lépp lu jëm ci wàllu matériel bi mu mel ni plateau technique bi soxal euh, spécialité bi di radiologie daanaka euh, xaw na des lu bari. waaw des na des na plateau technique boobu ñu wax ni dëgg dëgg des na. Mm-hmm. c'est vrai que comme ni ko waxee sànq am na amélioration ça aussi faut ñu wax ko. Mm-hmm. parce que tey jii scanner moom. <coughs> daanaka boo dem région boo xam ne amul scanner wala amul ay scanner mm. <coughs> actuellement boo xam ne problème bi sax mooy scanner bi ñu koy utiliser parce que parce que des fois sax da nga scanner mais doo am radiologue bu ko utiliser. léegi par exemple radiologue bu jógee Thiès dem ba dem ba Fatick. pour mm. di leen jàppale. Mm-hmm. mbaa radiologue bu jógee Dakar ñëw Thiès di leen jàppale. Mm-hmm. mbaa radiologue bu jógee Thiès dem ba Sédhiou di leen jàppale. Mm-hmm. parce que ak vraiment dans, dans, dans toutes les grandes capitales actuellement régionales am na scalaire. mais nag des IRM amul amul région. à part Dakar amul benn région. te Dakar sax IRM amul motul cinq. te actuellement avec la médecine moderne actuellement IRM dafa am solo. donc donc le plan des infrastructures il y a des efforts à faire. bien vrai quand même am na aussi ay jéego yoo xam ne état bi def na ko. Mm-hmm. parce que ay ay at ginnaaw gënoon na fi metti. Mm. daanaka dafa am région boo xam ne région lëmm mm-hmm. lo te loolu loolu loolu mm-hmm. donc c'est vrai que comme comme on dit bien mais première paire. d'accord mm-hmm. euh, docteur euh, Mbodj wax nga ko euh, IRM du du du du du région yëpp ñoo ko am pratiquement am na ñu ko am am na ñu ko amul mais ndax loolu aussi du gàllankoor li nga xamante ne moom moo di faj bi ci benn côté. ah waaw loolu loolu loolu kay loolu kay am na am na da da day am impact forcément si si si kii bi si si si faj bi. Mm-hmm. parce que tey jii malade ko defal rajo nga gis loo xam ne leerul nga ba léegi gis loo xam ne leerul lan moo des IRM moo des hmm. boo dëkkee Thiès ba nga dëkk Diourbel ba nga dëkk Kaolack nooy def jël malade bi yóbbu Dakar hmm. il faut nga dem Dakar wut fa rendez-vous déjà loolu métti na si malade bi deuxièmement dafay cher parce que lépp loo xam ne dafa néew dafay cher hmm. bu ko doon bari fa fa prix bi day wàcc mais loo xam ne juróomi nit am xam nga ni dañ koy donc effectivement loolu dafay gàllankoor day day day gàllankoor faj bi. Mhm. rawatina nag si ñi nga xam ne ñooy faj ay mbiru sidit. ay mbiru parce que bu ñu sidit sidit les sidit waaw. sidit waaw les les les les les par exemple les chirurgiens les les neurologues les neurochirurgiens. Mhm. nga xam ne ñoom ñi gën a soxla IRM si la ñu bokk. Mhm. donc ñooñu. seen liggéey effectivement dina gàllankoor. du ñoom rek ñëpp la mais je veux dire que domaine boobu moo gën a lu ëpp lu ñu koy donc effectivement comme ni ko waxee dafay gàllankoor liggéey bi waaye nag bon actuellement les choses so ce qu'elles sont mhm. donc bu amee malade da nga dugg si ambulance téléphone principal wut rendez-vous mbaa nga téléphoné fan wut rendez après nga yóbbu si malade parce que malade li loolu gën si mooy fi mu a jàppale si malade bi mhm. su boobaa faj mhm. moo gën a gaaw mais aussi coût mo moo a yomb Euh, justement sax ci ku boobu laay dellusi mu mel ni li nga fi expliqué yëpp moom mooy moom mooy firndeel des fois askan wi Ah, dina ñu bëgg def yenn analyse yi wala yenn rajo yi mais bon même bu ñu leen ko prescrire ils te disent njëg bi tamit dafa cher trop lool lan nga ñu ci mën a wax ba xam amuñu moyen boo xamante ne bon dinañ ko xaw a wàññi wala ñu subventionné ko ci ñi nga xamante ne certainement seen loxo jotul seen ginnaaw comme on a l'habitude de le dire. waaw li nga li nga wax moom dëgg la moom parce que ñëpp xam ne Sénégal actuellement sikkim dafa la kandoor fi mu nekk ni koo gis mu ngi ak ak ay problème am mm-hmm. mais nag ñun boo xoolee hôpital yi quand même prix yi ñuy def mun naa wax ni quand même prix prix prix raisonnable la a mm-hmm. di ko defee quarante mille francs dans le privé dañ ko defee soixante mille francs ba quatre vingt mille francs deux te hôpital aussi am na ñu tuddee service social mm-hmm. yow boo ñëwee ñu la quarante mille francs la bu amuloo quarante mille francs da def service social bi ñu dina ci compal boo xam ne mille francs yenn cas sax ñu may la lépp doo fay dara. Mm-hmm. loolu loolu bés bu nekk mu mm-hmm. man du ma xëy du ma xëy te wàccu ma te mayoo ma benn scanner wala ñaari scanner. parce que gis nga boo xam ne comme ko waxee dañ koy bindal mu leer na kii mënu ko fay. Mm-hmm. waaye nag aussi ñi nga xam ne mën nañu fay mais faw ñu fay. parce que aussi appareil yi wax naa ko sànq appareil yi dafa dafa dafa dafa dafa laaj seen bopp dañoo cher. xam nga appareil bi ñu deux cent cinquante millions mënoo mënoo ko defee dix mille francs ak examen. Mm. kon kon balaa ngay versé deux cent cinquante millions appareil ba yàqu. te appareil daf am durée de vie appareil dafa am boo xam ne même bu amul panne sax am at defee day day day day comme nit la rek da ngay judd mag màgget dee. donc appareil aussi dafa am durée de vie. donc li ñuy investir aussi il faut rek ñoo ñoo ñoo ñoo ñu solde ko mais d'accord naa ak yow que effectivement ba léegi affaire xaw na cher. mais il faut que nit ñi aussi def ay effort. Mhm. parce que le problème actuellement le souvent c'est-à-dire que nit ñi bala ñu hôpital yi li ñu fi fi jóge mm-hmm. yow da ngay nekk si poste de santé poste santé li si li si dafa leer malade boo fa téye une semaine wérul référé ko mm-hmm. looy téye ci benn santé ba ngay waajee dee ñu ngàbb la indi la Thiès mm-hmm. ñu téye la Thiès ba nga xam ne mën si yow dara ñu ngàbb yóbbu Dakar mais bu ku nekk da xam fi fi fi fi fi nga fi nga a yem boo demee ba fii xam ne mënatuloo nga ne xaar ma jox ki nga xam ne xëy na bu ma fekkee ëpp ma xam-xam sax mais moo ëpp jumtuwaay. Mhm. xaar ma jox ko bu doon loolu xëy na maanaam bi ñu ba ñu hôpital lépp lañ fay bàyyi. Mhm. wala boog ñu jox ko sëriñ bi ma jox ko maamoon maamoon bi. Mhm. dem si maamoon bi dem fa dem fa dem fa ba desee ñu dara ñu soog a fàttali ko di hôpital am na. balaa ñuy ñëw fi ñu yëpp li ñu amoon yëpp ko bàyyi. loolu aussi bu ñu waxante dëgg c'est une raison bi tax ne maladie aussi ils sont pas solvables ça aussi c'est des objectifs balaa ñu ñëw ci hôpital bu ñu indaale dara wa illaa bàyyi nañ ko ci sëriñ bi wa illaa bàyyi nañ ko ci poste santé yi wala si case de santé bi wala sax yenn saa yi ci seen biir kër yi dafay mm-hmm. dafay am mm-hmm. Euh, docteur Mbodj bu dee ci sëriñ bi wala ci seen kër sax loolu mun nañ ne eh, ci seen coobare bopp la mais malaat boo xamante ne da nga nekk ci poste santé poste de santé dix quinze jours tamit référé la donc foofu responsabilité bi dañ koy imputer ci yi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon jox les premiers soins parce que moom euh, mënul mënul euh, lu ñuy naan pas automédication mais mënul tëb tëb rek certainement dem jóge ci structure bi dem ci benn structure sans l'avis wala l'aval donc go du du du du médecin. waaw loolu je pense que il faut il faut faire très attention. allez-y. parce que les les, les responsabilités sont partagées. Mm-hmm, d'accord te man en connaissance de cause. Mm-hmm. parce que man yàlla dafa def damay dem ci àll bi def ay échographie. d'accord di def ay rajo ci àll bi. Mm-hmm. di leen di leen bari. donc les responsabilités sont partagées. comme dans tout domaine il a des agents véreux. d'accord a des infirmiers yoo xam ne dañuy ñëw. di lekk xaalisson di jàpp maladie di leen safal comme ni ko sànq ay sauvetage ay perfusion pour wut li ñu ci am. Mm. loolu am na. Mm-hmm. loolu du ma du ma ne mm-hmm. lay téye parce ñoom loolu xëy na loolu mooy seen gagne-pain. Mm-hmm. téye la di safal ay perfusion li am ñu jël mais à côté mais y a yoo xam ne mais il préfère ça. d'accord man il m'arrive ma dem si benn structure gis fa loo xam ne dama malade bi soo bëggee wër ñëwal Thiès. wala demal Dakar. parce que li ma gis yow ñi ko faj. Mhm. mais bu mais boo yenn saa histoire. malade bi waaw docteur Sangam ki yàgg na fi ma ma ne ko ah kon de bal responsabilités sont partagées. Mhm. mais bien mais mais li nga wax parce que ma malade lu mu munti wax dama koy comprendre. parce que dama jàpp ni wax ko xamul rek. Mhm. ko xamul moom doo xuloo moom. par contre li nga wax te am solo mooy ki xam ne xam na. muy agent de santé bi. Mhm. xam ne lii mënu si dara. Mhm. muy insister man ci kooku laay comme ni nga waxee kooku laay wax. Mhm. parce que actes yooyu c' est des actes qui sont criminels parce que man waxuma sax xaalis bi def ci malade bi loolu taxul wax boo sax da nekk xaalis sax mu wér ñu mën a wax mais non seulement di ko appauvrir mais ba pare di ko rey. parce que doo ko faj te di ko wérul dafay de donc en fait donc man surtout je je parle par rapport même aux personnes de santé. parce que dama koy bàyyi mu def ak ak conviction en tout cas ma li ma xaar dinaa la ko mm-hmm. mais du ma du ma mais du ma sukkul ak mm-hmm. parce que aw ma sañ-sañ boobu si yow. Mm-hmm. par contre agent de santé bi nga xam ne dafa jàng xam ses limites di outrepasse ses limites di def loo xam ne kenn sant ko ko man kooku laay waxanteel. waaw ah, d'accord euh, mënuñu tëj émission bi te waxuñu fi nga xamante ne moom moo di euh, hôpital bu Thiès ginnaaw bi nga xamante ne yow yaay chef du service d'imagerie euh, d'imagerie médical ci ci ci hôpital boobu tey jii au niveau de de l'hôpital de Thiès imagerie médical bi comment est-ce que cela se porte à l'image des autres régions waaw vraiment euh, il faut dire c'est quand même l'image de l'Unicasse, ça porte très, très, très bien. Parce que moi, par exemple, dans le service, je suis dans le service en 2008. Mm -hmm. Si je comparais les gens de 2008 à 2021, on a parcouru un, vraiment un, un, un, long chemin. Parce que tu dit, on a un scanner, on a un appareil échographie, mhm. on a un mammographe, on a un table de radio. Tu es solo, moi, c'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24. service d'évangile médical bi fonctionné vingt-quatre heures sur vingt-quatre yi mu am ci ab taalibe bariwul parce que dafa am sacrifice parce que dans les services de radiologie moo def système de garde classique système de garde classique mooy lan wut ay médecin di leen ay cent mille francs par mois wala ay cent cinquante mille francs par mois pour ay garde loolu mënoo am radiologue bu ko accepté parce que comme ils sont rares le marché donc ils sont chers donc loolu man étant étant seul ou bien on étant dérangé dans l'hôpital donc on est de de nous, de nous sacrifier pour def garde bi toute la semaine. Mm-hmm. parce que même boo demee Dakar maa ngi leen nga xam ne formation ne leen kaa leen ngeen Cees ngeen jàppale ma mais ma leen fay cent cinquante par mois dañu naan la vraiment euh, docteur loolu dafa doon. Mm-hmm. parce que foofu ñu nekk nañu fa cinq fois plus que loolu. Mm-hmm. mais nag on a sacrifice. même étant deux radiologues di di donc de, de ce point de vue vraiment amul benn problème. Mhm. donc au point de vue du matériel quand même aussi administration bi def na effort yu mag pour jàppale ñu pour a chaque fois que boo xamee ne euh, am nañu ay problème matériel yu urgent mu mu taxaw si. Mhm. bien vrai que nag des na. comme tey jii bu doon suñu am mhm. IRM. c' vrai que c' est projet mais projet boobu c' pas encore concrétisé. mais dans ensemble vraiment si je compare le service d'imagerie de Thiès fi nga xam par rapport par rapport aux autres régions. Mm-hmm. par rapport aux autres régions je suis persuadé que l'hôpital se porte à merveille. en tout cas au, point de l'imagerie. d'accord mais si je compare par rapport à Dakar par exemple je pense que même on a vraiment on a a, fait du bon chemin. Mm-hmm. c'est une œuvre humaine je pense qu'il y a des choses à, parfaire mais je pense que ici en tout cas au niveau de l'imagerie quand même on est sur les bons rails. d'accord d'accord docteur euh, Mbodj euh, waxtaan wi am na solo échange yi intéressant na woon mais nag mu mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu wi yegg nañu ca. waaw ah, kay jërëjëf ñu ngi sant bu baax a baax. Mhm. jërëjëf. d'accord amoon amoon nañu kontaan loolu waxtaan ak seen auditeurs yi. Mhm. yaakaar naa ne xëy na euh, sa yenn yenn seen yi tontu lañ mm-hmm. ah, donc ñu ngi leen bu baax di leen gërëm di leen souhaiter une bonne continuation merci. Mm-hmm. d' accord euh, jaajëfal bu baax a baax moom tamit docteur Mouhamadou Mbodj ma fàttali ni médecin radiologue la waaye nekk chef du service d'imagerie foofu ci hôpital bu Thiès ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo ci micro bi Léopold yi nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité